tàggu sama naataango Makhtar Cissé nga xam ne maa ngi moom ñoo fi teew tey jii pour wax leen euh, ci ministère bi yore mbirum euh, énergie ak en même temps ministère bi yore mbirum ndox mi li nga xam ne moom la président tëral dafay euh, gàddu ci budget nguur gi li nga xam ne moom la nit ñi waroon a fay jël sama kàddu teg ko ci kàddoom pour gërëm suñu naataango. Euh, Ablaye Diouf Sarr bi ñu fi accueillir tey jii euh, di ko wax waa góor moom ak euh, ñu mu liggéeyal ñëpp ak personnel de santé yi nekk ci hôpitaux yi centre de santé yi poste de santé yi te wax waaw góor ci liggéey bi ñuy liggéey boobu ba léegi di ñaan yàlla ñun ñëpp ñu jàpp ci liggéey boobu ci li nga xam ne moom la ñu digal pour ñu def ko pour épidémie bi bañ a law pandémie bi bañ a law et en même temps aussi di ñaan yàlla mu baal cee génne tey ji donc euh, euh, président de la ci li nga xam ne dogal yi mu jël pour euh, woyofal crise bi ñu nekk fi mu nekk nii ci li mu gindi ci askanu Sénégal ak ci entreprise yi benn mooy nee na dana joxe dund boo xam ne bii ministère développement communautaire moo koy toppatoo ñaareel bi mu ne dana gàddu facture électricité ci anam yi nga xamee ne sama naataango Makhtar Cissé wax na ko beneen bi mu ne dana gàddu facture ndox yi facture ndox yi bi nga xamee ne mi ngi def euh, annonce bi boobu fi ñu jotoon a liggéey mooy facture ndox yi ñuy wax ci milieu urbain maanaam ci réew taax yi euh, mais liggéeyoon nañ tamit ci facture ndox yi ci réewu kaw yi boobu danaa ci danaa ci dellu si tamit ci wax na nañ ci taxawee